Euh, li ñu njëkk a def rek mooy fu ne kilifa jóge na fa di Dakar tuuba Daaru mus fu ne Taïf ñëw ànd ak sëriñ bi ngir màggal bis bi kon bala ñuy joxe kàddu yi rek dafay baax ñu ñëw ci kilifa yooyu euh, yi fi jot a teew tey yi fi jot a teew tey ci bis bi am na ci ñu jot a dem waaye bari na kilifa yoo xam ne si euh, ci suba ba léegi ñëw nañ ànd ak euh, ki nga xam ne mooy sëriñ Assane mbakke ngir màggal bis bi nga xam ne si moom lañ jageel jagleel euh, Cheikh Modou Moustapha Al sëriñ Serigne Cheikh Aziz Mbacké ibnu sëriñ Abdou Aziz Bara ñëw na ci bis bi Serigne Youssou Mbacké ibnu gaynde Fatma moom it teew na ci bis bi Serigne Cheikh Wilaya Mbacke ibnu Serigne Dan Anta Mbacke moom Atta ñëw na moom it Serigne Modou Baara ibnu Serigne Abdou Khadim Mbacke Baara moom it ngi fi Serigne Modou Baara Mbacke ibnu Serigne Khadim Modou Baara Mbacke moom it mi ngi fi Serigne Fallou Mbacke ibnu Serigne Moustapha euh, Absa euh, moom it teew na fi. sëriñ maam Thierno Mbacke ibnu sëriñ as euh, Asulo Mbacke moom it mi ngi fi sëriñ Koso Asulo moom it mi ngi fi sëriñ Modou Kara Diop ibnu soxna Ami Mbacke moomit it mi ngi fii sëriñ Moustapha Lo ibnu sëriñ Modou Lo Ndam mi ngi fi sëriñ Malick euh, Lay bu cees moom it mi ngi fi Cheikh Bamba bu Thiès moom ñëw na sëriñ Cheikh Lo. Euh, moom it ñëw na Serigne Moustapha euh, Gallo moom it ñëw na Serigne Bassirou Diop Medoun mi ngi fii Serigne Abdou Sila mi ngi fii Serigne Abdou Latif Mbay mi ngi fi Serigne Amadou Sila moom it teew na fi ak ku ñuy wax Cheikh euh, Baba Mbay Serigne Cheikh Marema moom it teew na ci bis bi Mbàkke moom Serigne Modou Bara également mi ngi fi ak Serigne Ahma Dia moom it teew na ci bis bi Serigne Alaaji Diop it mi ngi fi délégation ndaam Serigne Cheikh di xalif bu Ndam Serigne Ndam Lo et ak famille bi yëpp ñoom it ñu ngi fi délégation bu ñu jógee ci kilifa euh, diine yi dañuy dem xam naa ci euh, euh, kilifa politique yi nga xam ne ñu ngi fi ñoom it ki nga xam ne mooy le maire de la commune de yi ñëw na. ànd ak délégation waaye dafa ñëwee ci trou maire représenté également le ministre Samba Ndiobène Ka mi ngi ànd ak euh, le maire mi ngi ànd ak ses adjoints ñu mën cee lim Dieynaba Ka di première adjointe hmm, Sada Niang Madien di deuxième adjointe ak sunu bàyyi Sémouña muy conseil également Baraba conseil moor Ndiaye Ibrahima Ka Samba Ndama Ka Moussa Ndiaye Aram Dieng di secretaire municipal bi Samba Ndiaye président comité de santé Ñilaan Ndiaye euh, moom it adjoint municipal Ahmed Ka agent municipal Mamadou Bassine Dia également ñëw na Abdoulaye Diop notable également bi nga xam ne moom jóg ne ba bu sànn Ali Saleh également Ali Saleh également yoon le ministre Ali Saleh yónnee na fi délégation euh, kii ko jiite mooy Abdou Aziz Ndiaye mi ngi ci ànd ak Daba Ndiaye ñoom ñëw nañ euh, teewal fi ki nga xam ne si mooy le ministre euh, Ali Saleh waaw soxna Mame Fatim Cheikh Cheikh sëñ Cheikh Astou Fall mu sëñ Basirou également ñëw na kon euh, mbooloo mi loolu mooy kilifa yi nga xam ne si ñëw nañ tey ànd ak euh, sëriñ Assane euh, ngir màggal bis bi sëriñ Saliou mu sëriñ Modou Kara Sar également mi ngi fi ak sëriñ Modou mu Cheikh Cheikh Ibra kon waaw kon léegi li ñuy def mooy rek daal di jàll joxe kàddu yi ni ko daan defee nag nii la mooy li ñu jëkkee mooy chef village mi ngi nii muy Serigne Cheikh Ndiaye Mor moo daan dalal gan ñi mooy dalal gan ñi jóge ci jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Oustaz parce que nag nit lu mu yëngu nekk war na xam li ko sabab màggal yi bari nañ waaye bokkuñu parce que màggal gi kiñ koy jagleel da koy màggal parce que mooy bis bi nga xam ne si ci la wujjee woon si borom kon muy bisub ñaan waaye di fàttali ko léegi rek maa ngi koy wax euh, bi ñuy interroger fële day am solo ñuy fàttali jëmm yu mel noonu parce que amaana tey lii nga xam ne si ñu ngi koy dund mu nekk léeg-léeg ay jafe-jafe solution mënees na koo jëlee ci liggéey bi nga xam ne si mag ñooñu liggéeyee noonu ko kon di leen fàttali dafa am solo lool moo tax oustaz Cheikh bi dana ñëw ci màggal gi waaye ñëwaat ci Serigne Modou Moustapha ñu taxawal màggal gi ba mu egsi fii tey buñ ci jógee jox kàddu gi euh, daayira yi parce que daayira yi ñoom it bu màggal gi mënuñoo tudd màggal gi tuddul leen lépp luy organisation lépp booba ñu euh, depuis lors ñu ngi ci kon danañ jox ki nga xam ne mooy Serigne Adama Diaw moom mu ñëw ci ñëwaat ci organisation bi organisation màggal bi euh, bu ñu ci jógee également dinañ jox euh, euh, monsieur le maire de la commune de Dayali monsieur Asset Sow moom it door ko tëjee kàddug sëriñ bi ki nga war a wax moo war a wax ci kàddug sëriñ bi ki nga war ki nga xam ne moo war wax ci kàddug sëriñ kon ñuy ñaan rek ñi nga xam ne ñu ngi jël kàddu xam na waxtu wi dañoo xaw a dafa xaw a xat ñu xaw koo gàttal rek ñu mën a delluwaat ci liggéey bi kon euh, chef de village bisimilah kàddu gàngoo bokki julli ji bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Assane Mbacké mii di leen nuyu itam ci turu waa Daaru gépp di am mbégte ci dalal leen ndax lii ñu am wax dëgg yàlla sant suñu borom rekk la am bis woote nit ñëpp bàyyi lan jàpp ñëw ci woote bi kon nag ñi leen di dalal mbégte rek la am kon nag sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant ci turu Daaru Salaam gépp turu dëkk bi di nuyu sa bokki bopp yi nga nekkal ndax bi nga xewlee gis na ne ñoom ñépp danoo bàyyi seen lépp ñëw ànd ko yow bis bi kon nag ñuy sant suñu borom ci lool lool ndax wax dëgg yàlla ci ginnaaw rek amoon nañu jaaxle bi nu gisatul woon Serigne Abo yàlla na yàlla yokk ay leeram amoon nañu jaaxle waaye Mbàkke day wax dëgg yàlla mujj woo puso bu mu réer lépp lu sëñ Abo doon def day yaa ngi def kemt kàttan di daje di yokk ku ñëw ci jataay bii xam ne day yokk kan nga yokk nga li fi nekkoon kon nag Mbàkke ñu ngi ciy sant bu baax ñun waa Daaru Salaam di ko puukare woo ndax euh, ku jàqoon def na ci bekkoon nga jëm nga ñëw indi ñu taw bi waame wii ñu jëm wax dëgg yàlla xam na ne Serigne Touba moom tànki kanam rek la am waaye amul tànki ginnaaw ci dëkk bii dañ ci war am jamono bu ne yaakaar ndax su nu way jur yi daa wax na day Serigne Cheikh Mbacké bi mu ko sancee waxoon na ne man na maa daal di def mu mel na njëndi léegi wante daa fee bëgg a jiite sama ñooñ ba ku ñëw roy ci ñoom kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñun ñii ba nga xamante ne suñu way jur ak way jur ñi fi toog bokk na ci ñi sëriñ Cheikh tànnoon andi la ci dëkk bi ngir bëgg nit ñi roy ci ñoom kon nag adduna ci boppam ak histoire mi ngi jox dëgg Serigne bi mu ngi jox dëgg mag ñooñu ko gis dëkk bi ak ni muy demaate xam ne wax dëgg yàlla la Serigne Cheikh bëggoon ñu ngi ci yoon wi ca Mbacké yàlla na nga ko yeggale ba tàmbali si fi bopp na nga ko bëggoon te ànd ko yow am nañ mbégte ci yow lool di nuyu nag mboolem sa bokk yi nga àndal euh, Bas Ndiaye Bas Diop lii na ko léegi kon nag duñ ci dellu siwaat waaye wax nan ne daal ñu am kóllëre leen ñu xam liñ bokk yow yow itam wax dëgg yàlla ku ku mën a jaxasoo nga ku am relation nga ndax nit ñi nag saa boo xew la ñu bàyyi li nga nekkoon ñëw ci yow xam nan ne euh, yaa leen ku ji nekkoon kenn ku ne mën nañu salaamaaleykum maaleykum salaam dem yoon waaye dañoo toog ànd ak yow yendu ba heure bi sa bokki bopp ak say xarit ak waa daaroog ni ko Bas waxee léegi kon nag wax dëgg yàlla loolu moom ci tur waa dëkk bi ñu ngi ci am mbégte lool di sant di la ci ñaanal comme ni ma waxee léegi bu loolu jàllee itam di nuyu mbooleem ñi nga xam ne wuy si nañ muy autorité administrative yi d'abord monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax di la dala jàmm di la seede ci kanamu sëriñ bi itam ne bin la waxee ne màggal gi sëriñ bi jokkoo ca yow mettre la en relation ak ñun ñu nga xam ne yoroon comité d'organisation bi li nga wax mooy ñëw leen seet si ma ñu def délégation fekk si la ba nga ñëwee lañ ñu wax mooy ñaari role laa amee ci màggal gi benn bi mooy dama di taalibe ne yéen la leen war ca kër ga war ma loola moom du ma ci waxtaan kenn parce que lu ma war la ca loolu wax mooy dëgg gi ndax ba nga fi ñëwee ba tey ñu di ko màggal at mu ne li nga yónnee at moo da ko yokk waaye mosoo ko delto ginnaaw kon la nga waxoon ne ci ab taalibe laa li taalibe yi loolu laay participer sama ko ba mat li ci des nga doon man maay meeru dëkk bi kon nag maay seen bunt ci wàllu administration kon dina lijjanti ba ñi ko war a yëg yëg ko yemoo ci nga dem wax ak sous-préfet ñu daal di organiser benn CLD au ñu woo ñu arrondissement sous-préfet dafa wax da ngaa wax ak sous-préfet mu fekk suñu fii Déaly yombalal ñu ko lool ñu waxtaan lan waxtaan lépp wax ci suñuy mébét lam ci man lépp itam ngeen ànd kook moom def ko ko kon nag wax dëgg yàlla mu le maire ñu ngi lay sant lool. ginnaaw bi itam nga ne nu defar leen ay lettre ma joxal leen ko autorité ak ministre yi fi nekkoon sëriñ bi bind lettre jox la nga dox ci la nga war a jox ba kenn ku ne yëg ko lam ci war a def mu def ko kon nag monsieur le maire wax dëgg ñu ngi lay sant yaag ñi ngi àndal délégation bi euh, bas liir na ko léegi dama xam su ma ci waaye ñu ngi lay sant yaag délégation bi def nga ko si yitte te ñun xam na ne def nga ko si yitte kon nag yàlla na yàlla dëggal taxawaay bi li nga mébal ci dëkk bi ak ci zone bi lépp sunu boroom dimbale la kàttan la yàgg sa njaboot ak conseil municipal bi nga ko àndal yàlla defal leen ci ndam ci barkeb sëriñ bi bég nañ ci yoon lool. di sant itam monsieur le ministre Samba Ndiobène Ka ginnaaw bi ko sëriñ bi yëgalee ba pare nam daan def rek ci jamono suñu ëbboo noonu la continuer def ko rek. yónni fi délégation bu mag yónni fi ay teraangay boppam yu baree baree bari jébbal ko sëriñ bi ba law fu ne kon nag ñi nga xamante ne ñoo ko nga xamante ne ñoom la yónni. ah ñu ngi leen di wax ne daal ñu ngi koy sant di ko gërëm ci li nga xamante ne noonu la taxawoo Daaru Salaam taxawoo ko sëñ bi taxawoo ko kër gi ca ñu loolu rek lan am di nuyu itam ah, monsieur le ministre Ali Sall Diop yónnee na fi délégation bi yónnee ci sëriñ bi ah def li ko war lépp ci sëriñ bi itam ca ñoom ñoo bokk département bi kon nag su sëriñ bi xewlee xewle fii Daaru Salaam ñu bàyyi la ñuy def yónnee ak seen i wax dëgg yàlla des na leen sant di leen ci gërëm ci turu sëriñ bi ci turu waa dëkk bi lépp kon nag loolu lépp buñ ko amee itam ñu ngi koy sant monsieur le maire mi nga xamante ne moo jëloon initiative bi ne yéen bind leen jox ma rek wax leen ma rek li ci des naa ko def def nga ko na nga ko war a defee ñooñu def na encore une fois jërëjëf di sant itam mbooleem notable yi fi nekk ci dëkk bi bu ma ko mooy tudd tudd Serigne Ibrahima Ka ñu di ko wax mbay mi nga xamante ne moo jiite association chef de village yi nga xam ne ñoo nekk commune nu Déaly muy jëf-jëf ju rafet di lëkkale lépp ñu def Serigne bi muy seen bunt ci lépp lu ñuy dem bu ñuy def wax ko buñ dellusee nettali ko kon nag lool euh, loolu itam buñ ko amee ma dellusiwaat rek ci maire moo leen ci dëgëral dafa leen ci lépp ndax moom li ma di wax ci bi wax ci mooy nam doon def ak Serigne Abo suy bëgg a def dara ñëw tàggu ko su demee ba dikk ñëw rendre compte Serigne Assane ci biir loolu la wax na ma dee Assane day lam waxante woon ca départ ba ba tey musie wàcc dara ndax fu muy bëgg a dem dinaa ko yëg su ñëwee dinaa xam la mu fa jëlee te loolu de mënu su ko ci kilifa ci dëkk kon nag encore une fois waa communauté bi ak euh, autorité administrative yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ci tur dëkk bi xam naa ne ku lim jum ci itam wax ji mi nga bëgg bari di sant itam imam mu dëkk bi sëñ Balla Ndaw ñu ngi lay sant gis nañ taxawaay bi ngeen xamante ne moom ngeen taxaw ci bis bi ni ko Bas waxee bi sub Cheikh Mouhamadou Moustapha la lañ ci njëkk mooy lu baax muy njàngam alxuraan ban ko santaane ci daara yi wax dëgg yàlla nit ñëpp def nañ fi 168 euh, kaamil jàng nañ téeméeri kaamil ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett loolu nag daara yi la ak imaam yi ñu jël ñu ñu tasaare ko xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha de ku ko waaye di defal boo ci jiitalee alxuraan bari ko ca wàccoo nga ak moom ndax loolu rek ko ñoroon loo ko bëggoon. jàng itam ci yaasin yi def nañ 66 yaasin wa kaan xaqan alayna nasrul mu'minin nañu def ci 90 jaalibatul maraaxib ñu def ci 40 salaatu ak gu man doon ñu ko doon def ñëpp li ñu déclaré def nañ ci euh, ñeenti junni askaanu def nañ ci ñaari junni nuuru daare nii jàng nañ ci ñeent ma faatixul bisri jàng nañ ci ñeent kon nag loolu bu mën a am ñu ngi koy sante imaam yi ak sëriñ yi daara yi ak ñi nga xamante ne ñoo féeti woon lii kon nag wax ñu jël soit rek di gàttal rek di sant di dalal mboolem koo xamante ne bàyyi nga si yitte ñëw fekk suñu fii nuyoo bi nag ak berat naa ci barat suñu mbokki Touba nga xamante ne ñoo ko seen ci Touba muy sëñ Moustapha mbay Gallo mi di suñ xarit di suñ mag ak sëñ Cheikh Lo ak euh, sëriñ Abdou Sula Cheikh ak ñëpp ñu àndal ñëpp rek sëñ euh, Gallo euh, sëñ Abdou Latif Mbaye mi nga xamante ne fii la jàngi alxuraan ba bi defi kaamil ak ñeneen ñi mu àndal ñëpp dama xam ne waxtu wi gàtt na ca mën a lépp waaye ñi ngi santaat di gërëmaat daal mbooleem koo xamante ne bàyyi nga si yitte Daaru Salaam ji woote ngeen ñëw ànd kook noonu ñu ngi lay sant di la gërëm di la di la jàmm di la wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa marhaban bikum jërë ngeen jëf eh, kon nag ngeen ko xamee bala tàmbali rek ñu am kàddu sant ak doole yaakaar ñun am ci ñoom tàmbale ko sëriñ Assane Mbacké Gaynde yàlla day nun ñi nga xam ne yàlla dimbali woon nunu ñu nekkoon fi ak ñoom ba ñu nekk gone ba fi sëñ aboo jógee jaaxle woon nañ ndax nee nañ woon socialement kenn ku mën a remplacer sëriñ aboo mbàkke amul waaye ndekete sëriñ asan mbàkke dafa bañ dafa yemoon ci rekk ndigalu sëñ aboo lu ko def la mu def ko xëccu wul ci moom dara ba mu fi jógee lañ soog a xam compétence Sëñ Assane Mbacké dëgg-dëgg mu def loo xam ne lii lu néew la ci yoon murit ndax keroog bi nga xam ne maanaam sëriñ aboo jóge na fi ñuy saraxal lam njëkk ak def nga xam ne doo dem ci kër mukk ba fekk fa ñaari koo xam ne ki bëgg ngaa ñëw jox ko ci moom jébbalu si mu ne la demal fa nga jébbalu woon sëriñ aboo mu nga fi jóge waaye sëriñ Cheikh Mbacké moom sëriñ aboo jóge wu fi dem leen jox ko ci moom kon kooku kenn ku ne xam ne wutul daraja wutul mbooloo la muy wut mooy lu samp ay doomam ay doomi magam sëriñ bi kon yàlla na nga fi yàgg te wér yàgg ci kanam gone yi gone yi yàgg leen a yàgg laa déglu gone yi it am ngeen sas bàyyi bi mel noonu ko ko am kat bul naw mukk loo ko defal loo def ci rëcc rëcc rek na nga ko tuub ci xam ne waru ko am di sant nagatim soxna may a mbàkke di ko sant baax ak soxna astu mbàkke sama sëriñ soxna astu mbàkke sama sëriñ di ko sant baax di sant soxna bintu mbàkke di leen sant ñoom ñépp ca taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci kër gi e, xam naa guddi na yaakaar naa am na conférence bi wax dana waxtaan sëñ Modou Sa waaye dañuy wax tuuti rek ci li waral bis bi ak ñu ngi xam ne noonu lañu ko daan màggalee li waral bis bi mooy nelawu ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké eh, kenn xam kenn ku ne xam nga ne aw tiis aku naqar ak responsabilité mu ngi yem ci ku ne sëñ tubaa jóge na fi ñu ne yaa koy remplacé léegi lañu léegi la wax gi yomb jëf ji yomb waaye booba jafe woon na lool ndax moom yàlla daa dogal ba muy am fekku ko fi waaye ba mu ñëwee ba seet ba nga xam ne loola am na diplomatie la jëfandikoo mooy dem wax na ko ki xane xam maa fi moo fi nekkal buur bi ca ndar ca ca jurbeel mu yëgal ko ko bi loolu amee sax ñoom def nañ ay pexe diggante gouvernance ba foofu ay armée lañ ko dañ ko defar ay soldat defe ne dara day xew waaye sëñ Modou Moustapha ci intelligence bi am am naa ñaari malet yoo xam ne dañoo nekkoon fees del xaalis dañ ko ubbi bàyyi noonu keroog bi nga xam ne tubaab bi ñëw da di vérifier war a joxe certificat de décès bi bi mu gisee xaalis bi moom dafa tiit waaye sëñ Moustapha moom sëñ Modou Moustapha xaalis bi jaaxalu ko mu bàyyi ko daal di cay joxe daal di joxe ndigal daal di ne sëñ Modou Moustapha kon ko ngeen koo denc Touba gi nga xam ne moom la waxoon ñu daal di ko indi Touba ñu denc ko ña ko war a fekk ñëpp fekk nañ ko ay doom ay baayam ay rakkam ñoom ñëpp fekke ko sëñ ba Bachir jiite leen bin dencee ba noppi sëñ Modou Moustapha eh, am na sasu waxan wi Serigne Touba sasoon na ko ko ñetti sas jumaa ji na fi taxaw ca booba yaakaar nañ ne wala xamoon nañ ne jumaa ji bu taxawi nëgë ni yow mën nga ne taxaw na waaye jamono jooja rëdd gi képp am na ñoo xam ne ñemewuñ ko woon ndax ay bokkam képp na ñoo xam ne bi koy rëdd dañ na lii mënut ak kenn munu koo tabax kenn mënu koo tabax kon nag rëyu euh, fitu sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacké ak teg gi mu teg euh, ndigalul sëriñ Modou sëñ Touba yëmali ko dara tax na mu jël liggéey bu rëy boobu daal di tàmbali di waajal liggéey boobu 1932 mu daal di tàmbali liggéey yëpp jumaa beneen bi ci des mooy rakkam yi rakkam yi bu kenn tumuranke rakk yi kenn tumuranke wu ci kenn ku nekk fam la war a teg teg na la fa mu siyet dëkk ba nga xam ne moom nga yayoolu mu yóbbu la fa nga nekk fa mu de la toppatoo di la gendiku ba nga màgg la nga war a am nga am ko la nga war a def nga am ko nga def ko loolu bokk na ci ñi nga xam ne tim ñu ay bokkam ñi ko mat baay mu def leen ay baay loolu lépp sëñ Modou Moustapha def ko ci diplomatie dara jógul euh, kenn ku ne xam na ne jumaa ji toll noonu nga xam ne Touba du rëy mukk mukk mukk mukk mukk ban ne jumaa ji daa tuut kenn tàmbali war ko 32 ragal naa ne bonne vision foofu la yem bu amuloon ba nëgë ni ñi ngi naan l'écartement élargissement de la mosquée waaye gis-gisu sëñ Modou Moustapha ëppoon na téeméeri at Touba du rëy mukk ban ne jumaa ji tuur na kon mu daal tàmbali liggéey bi bi mu bëggee tàmbali liggéey bi di am nay pakk yoo xam ne defal nañ ko ci euh, tubaab bi waaye pakk yooyu yëpp du ci àgg xëy na am na sama benn rakk boo xale bi sama élève incha allah dana ñëw waxtaan bu ñëwee yooyu yëpp dana ko àggalee mu daal di àggal mu daal di continuer ci loolu lam ci war a def lépp mu def ko ah, indi saxaar gi ci ah, Touba ah, boole njaboot sëñ Touba gépp daal di nekk ci loolu sëñ Modou Moussa daal di nekk ci loolu ba xamee na nag léegi 1945 da ngay xool rek 88 1888 1945 xam ne boo xoolee 57 ans la nun ñu am fi 57 ans bu ñu doon jël taxaw kenn du xam nu mu toll moom ñu yaakaar ne mag mu dul jeex déedéet ay at am na solo waaye li am solo mooy li ngay def ci at ya la ñuy def ci at ya moo am solo sëñ Modou Sallam doon def ci at ya moo bari ba nga xam ne boo déggee jëmm ji da nga naan dund na lu mat ñaar téeméer at fekk booba dund lu dul juróom fukki at ak juróom ñaar ndax liggéey bu rëy bi ni mu dajalee bokkam yi ni dajalee rakkam yi ah yàlla dogal la neex dépp du daje ci cin 1945 ñu am mbetteel Cheikh du Moussa wàcc ab liggéey moom wàccee ab liggéey nag muy bis bu triste bis boobu tey jii moom la ñuy màggal eh, ñu koy màggal ci dëkk bi ragal naa ne luñ ko màggal ci dëkk bi kenn mënul ah astafurlah ñu bari xamuñu ko lu mu mbon bon daal xam naa ne mat na juróom fukki at moom yu teg ëpp na ko sax juróom fukki at yu teg booba man maa ngi ci daara ji su màggal gi jubul see su ma amee ñaar fukki dërëm defe wan damay defe ne deseelatuma dara maa ngi fàttalu ndeysaan euh, sëñ Moustapha Sylla la benn jigéenam xam naa man sa yaakaar naa la tudd bi nga xam ne dañoo jub euh, màggalu kii màggalu ñett fi mu roxlu mu wàccub liggéey keroog damaa jooy ba sonn ndax ba ma ko dénkoon ñaar fukki dërëm cam faatu man xalaatuma soxna si waaye sama ñaar fukk yi ma ko dénkoon laay xalaat xam ne sax màggal du neex ah tey gone yi koo xool ci poosam ma nga naan ñaari téeméer ci poosam ci boo ko xam ne réew mi fi neexul ah? kon euh, loolu moo nekkoon day foofu la liggéey bi tàmbalee soxna may tàmbalee ko bi mu koy tàmbali nag déggu ci murit xaadir tiijaan pël séeréer ñoom ñëpp ñu ànd koog moom kenn ku nekk la nga war a def nga def ko amul frontière amul dara amul affaire ethnique amul lenn soxna may nekkoon soxna mbeen nekkoon koo xam ne kii eh, wax dëgg yàlla ay jukkoom buñ ko doon wax fii man na man naa cee wax yaakaar naa ne fii ba njël ca du ma ko répété ca du ma jeexal ndaxte koo xam ne kii bu dee togg day toggul ay ñam ba mu jeex ba bam ba mu rëy ba bari lool neex mu di ko séddale donge di ko séddale ba mu sédd xam ne da dañuy dañuy njëkk day sonn si nun duñ commence xane day gaaw ah danaa commence danaa commence ko dugg wala wala baat wala baatu bi daal koy mos loolu la ko mos say noonu la daan def mbàkki nekk ca loola ànd koog waa dëkk bépp am naa ci benn baay boo xam ne danaa ko tudd muy Alaaji Cheikh Ndiaye Mamoun yàlla na ko yàlla yokku leer ko àjjana jàndoor firdaw si maa ngi fàttali ko booba day ku ne saakub siyaam daana ko joxe léegi mën nga ne loolu dara waaye jamono ñooja saakub siyaam dara la bu màggal a ah, waaw su màggal gi ma saa ñëw daana joxe saakub ceeb ak potu ah, ak potu tamaate waaw su ma ko masaan gis man damay ki waaru lool loolu allah cheikh ndiamumul daana ko def yàlla ko yàlla dimbali woon la nga xam ne moom frontière artificielle yi nga xam ne moo xew yàlla dimbali na ko bam teel ko xam teel koo dégagé teel koo ki noonu la ci ñëpp bokkee dama doon lim waajur yi su ma doon lim waajur yu nekk mën naa la lii nga def waaye juru may lim par benn par benn bu ma limee kenn rek limal naa ñëpp noonu la ko soxna si defe di ko defe ba jóge fi bi mu fi jógee tim e, sëriñ Abou Mbacke Gaynde Fatma fam toog yàlla na ko yàlla yóbbu daw si njëkk mu ñëwul pousse bu mu réer daal di jël la waajuru ma jëloon mu jël nag diplomatie am diplomatie boo xam ne bii wax dëgg yàlla moo ko ëppale woon soxna si ndax léegi booba am na lu daan xew lu ndaan am ci dëkk bi diw tijaan wala diw murit la booba da daan am kër bàyyi ma jeng ma ñang sala aka aka doonoonu sarax bu ma daan ma masaan yoloon ba jëkk ku ko jël rek boo ci jëkkee da ngay daal di ñibbisi xam nga ko mënoo ko jeexal waaw waaw kooku dëgg yàlla noonu lañ am def ñu dem ci loolu soxna si def ci euh, saña boo dem ci loolu fexe ba mag ñooña kenn ku nekk mu jox la cër ba doom ya nga am ak sët ya nga am nga bàyyi leen ñu ñëw ci kër gi tey jii ñoo nekk ci kër gi jiite daayira yi bokk ci daayira yi jiite daayira yi la war a def lekk ñu ngi koy def yàlla na yàlla guddal seen fan ca yokku seen euh, kattan bi jaayil xaadimi wal max doom xam naa maa ngi bëgg a guddal naa yem foofu sëñ bi chakra law ma chandaw ma saakum bi jaal xaadim wala jërë ngeen jëf